alors asalaamaaleykum um, uh, damay def vidéo bi pour jël suñu citoyen yëpp ak bu àdduna bi laay wax témoin parce que depuis uh, quelque temps bi ma nekkee Sénégal ak léegi uh, suñu police yi nekk fii Bargny sorewut ak suñu dëkk fi ma dëkk man ci village bi ñuy wax Sendou di ñëw fi di ma di ma harcelé di harcelé suma njaboot mais aussi ñi may liggéeyal fii sama staff ñun doomu réew mi lañ kenn ëppale wuñu ci senegal fi laa juddoo fi laa màggee suma waajur yi fi lañ jóge fii lañ màggee yaa ngi dégg ba am vingt ans ma jóge fii dem uti bitim réew comme immigré yi dem yépp uti bañ utee dañ dem pour demuñu pour dëkk fofu da may dégg bu baax mais dañ dem pour luñ am ñu indiwaat ko suñu rew té loolu la def parce que mënoon na tok bi États-Unis wala ma tok Singapore wala ma tok France wala ma dem fenen dëkk fofu parce que liggéey naa loo xam ne mën na ma dimbale ci loolu sutural ma ba ba may gën àdduna mais dama ne Sénégal am na lu def ci man loo xam te man dama ko war a delloo njukkal dama war a am lu ma def suma réew because li ma gis man yeneen ñi di def seen réew yi mooy ñoom ñooy suqali seen réew te Afrique ñun doomam yi ñoo ko war a suqali you know bi ma ñëwee ma décidé pour dëkk ci village bu mel nii so I can have a more of an impact in the community and the young people yaa ngi fii mooy su ma toog ni tey mooy suma kër deux maisons après man général Fall moo ci topp après beneen kër bi ci topp benn tubaab bi ñuy wax Robert moo ko moomoon c'est un français sama yi nekk ci dëkk bi ñëw seet si ma na ma kër gi dañ koy jaay tubaab bi dafay jaay kër gi comme que tubaab bi moo ko moomoon ñu ngi koy jaay man ma jënd ko ci suma xaalis boo xam ne ko liggéey mu mu mu mu lew ma bi ma ko jëndee ma gis ne dëkk bi amul librairie te man Amérique ma nekkoon kon bu ne am na librairie parce que dëkk aussi américain dañuy wax leaders are readers mënoo préparer avenir dëkk te doo leen jàngal il faut ñu am éducation il faut ñuy lire ma ne kon léegi dañuy créer librairie jël staff bi ñu organiser ko ma dem États-Unis uti fa ay livre dem France ak Canada uti fa ay livre def yëpp ci bato def ci suma xaalis mu ñëw ci biir réew mi fii ma jëlee si ay ma ay xarit la décembre bële passé ñoom ñëpp ñoo jàppale ma ñu peinture affaire bi fay ay jeunes artistes ñoo peinture affaire bi dëkk bi yëpp génn seen ñu ngi bi ma def ci internet def ci ay ordinateur te loolu lépp kenn du fay jëli benn jeune bu nekk benn indi ko di ko fay muy jàngal xale yi jël xale yi nekk ci dëkk bi ñu nekk ci école bi yëpp bu ñu wàccee free pour ñoom ñu am tutoring ñu mënul lire mu leen di mu leen jàppale ñu seen niveau gën a dem tuuti d'accord bi ma demee tuuti quelques mois ama dem États-Unis ñu woo ma ne ma xale yi temps yi dañu doon sàcc xale yi xaw ma je sais pas quoi li wax ci dëkk bi Sénégal daaw jéeg léegi xale yi kenn nangootu la jàng si librairie bi daal duñ gis nit vaut mieux ñu tëj ko dem si def leneen ma ne leen baa leen dama ñibbi si bi ma ñibbisee Sénégal comme que jigen ñi dama leen jëloon ñu jigen ñoo xam ne ñoo nekk fi amuñu liggéey ci biir dëkk bi ay mag lañ am ay doom ma jël leen ñuy nettoyé foofu ñii di togg fu ak togal xalé yi yaa ngi dégg xale yi fay liggéey boy sécurité tout le monde on a de beaucoup de jeunes yoo xam ci village bi lañ nekk di liggéey foofu ñu ne ma ñun buñ sañoon nag ñu koy defal maison meublée ñu ko defee ñu koy loué parce que am na ci dëkk bi mais benn indien moo ko moom ma ne amul sens indien nekk ci ñëw ba jóge ba Inde ñëw ci biir Sénégal ubbi entreprise fii seen bu contrôlé ko lu nga wax royal xuma naka hôtel fii ñëpp ci moom foofu la ñuy dem te ñu doomu Sénégal yi nekk fi amul sens quoi ma jël sama xaalis investir leen si ñoom meublé leen ko peinture leen ko def ci lépp lu mu war a def nekk high class mais xamoon naa ne lii dina ñëw ma dem yónni leen ñu dem APEX def papier mu légal d'accord xam nga ku dem def ay papier mu légal ah kooku nekk ci lu dëng ñaata ñaata Sénégal ñaata kër nga fi fekk fii Sénégal fii ñu koy luwee ba États-Unis sax di ko defee Airbnb ak Booking te duñu am benn këyit mënoon naa ko def maison privée du am benn këyit bu at jotee nga fay taxe ce qu'ils font avec Airbnb et Booking et cetera Travelocity ak ñoom ñëpp ñi may déglu xam na li ma wax bu Sénégal boo demee léegi tapé internet Dakar da ngay gis ay maison privée yi ñu si di loué mais ma maison privée bi nekk à côté sama beneen maison maa ko moom jox ko xale ñu koy loué ma dem uti Apix. ñu ne après polisi police yi ñëw fi da ngeen soxla ma papier je sais pas quoi ñu dem ministère tourisme ma envoyé ñu dem ba tak document bi ñëwee boy sonal leen fi maa dem ba ci commandant bi jox ko document bi ne ko xale yaa ngi nii te leen ñu liggéey dama leen utal luñ jàpp ba leen ko bàyyi la ñuy taxawal ci mbedd bi amul luñ def maire yooyu nekk foofu man weer dee man coon ñaa maay génn suma xaalis liggéeyuñ fa lu ko def à part été bi seen sorti yooyu man ma génn suma xaalis di leen fayal seen salaire barke alxuraan karim moi bi ni amuñ leen fayal salaire ma leen fay ñoom ñëpp suma parce que bëgguma leen gis ñu taxawaalu am naa ak ñoom relation yooyu léegi ñu mel noonu nga koy def si biir réew ah, nga am copie illégale yi nga soxla yépp ñoom ñu nekk di la agressé chaque jour bu fekkoon dafa yem mais démb dama ñëwaat fii septième fois presque ngi nii lii di amal gan yu may recevoir fii yu jógewoon Amérique di reer ak ñoom gardien bi ma yi di yuux gardien ma policiers yi ñoo nekk ci buntu kër bi damañ avant sama kër lañ njëkkee man. te sama kër xanaa am naa droit man en tant que citoyen du pays euh, am sama kër am fa vie privée ñu ñëw ci sama sama sama buntu kër di di di di agressé di di harcelé sama gardien di enquête ci man ana coon fu nekk lu muy def fu mu dugg fu mu génn lan mooy seen yoon ci loolu. wanañ benn papier bu leen juge yónni parce que amul lu leen juge war a yónnee man nekk ma ci dara lu illégal d'accord donc amuñu droit di ñëw sama biir kër di harcelé di xool man ci li ma nekk chaque jour ma enquête di ma topp pourquoi fu ñu ko teg. sax dëkk bi léegi dafa nekkatul dëkk démocratie wala dëkk jàmm wala dafa nekk léegi dafa dictatorship ba nga xam ne loo fi dugg loo fi def dañ lay topp di la di la teg choc te te ñoom ñi koy def booy yu ko def c'est des corrompus parce que fi la ñëw di ma ñaan xaalis mi lañ koy may tu comprends ñi si am problème di ñëw mooy faj seen problème ba pare derrière ils me font des trucs comme ça dama leen jàppoon comme ay mes jeunes frères mais il continue de ma attaque di attaquer di ñu attaque bay ñëw sama kër ba man me sens plus en sécurité dans mon propre pays maintenant je j'interpelle l'État de mon pays j'ai envoyé euh, une lettre à mon grand frère Aline Ngouille Ndiaye et le commandant pour nous réagir te lii bëgguma koon def moo taxoon ma envoyé leen lettre bi tey ci suba parce que démb nelaw ma bi ma li Je ba léegi d'accord sama gan yi ma seet si démb gis nañ loolu dem ak policier yi ma xëy fajar dem tool li tax ma def vidéo bi bi ma toogee ci biir tool yi añ dañoo raxasu rek ñu woo ñu nañu policiers yi ñëwaat nañ fa encore fekk fa booy yi dako ne jël euh, néeg yëpp ubbi ko nga ngaale ko jël booy gan yi fa nekkoon jël seen xaalis yóbbaale booy tubaab ñaari tubaab ya fa nekkoon yóbbu leen ñoo xam ne defuñu leen dara dara dara dara dara yéen di ci d'accord loolu fan lañ ko teg ñoom bu ñu buggee bu ñu bëggee kuñ jàpp am nañ kuñ jàpp ci réew mi na ñuñ jàpp Sénégal ñun ñëpp doomu réew xam xew ci bi na politiciens yi nekk dëkk bi fii boo leen xam ne xaalis ñu yoon dañ ko sàcc. they've stole all their money li musuñu liggéey musuñu am entreprise musuñu créer emploi musuñu def loo xam te luy dimbale réew lu wax rek ñu tox le pays ñooñu leen war dem gëstu ji même. comme ça man je paye plus de 200 jeunes chaque fin du mois Jigen, ay jeunes ay jigéen ak ay ay ay xalé chaque fin du mois man Sonia maa leen di fay par weer plus de deux personnes waxuma ko pour ndam mais il m'a poussé contre le mur donc je dois parler d'accord maintenant je me sens pas en sécurité chez moi and I'm not but I'm here to to warn them to not never come back to my house again man Tu loo wax ne bu ñëw suma kër parce que amuñu droit dugg fii ok su fait que na lu leen jaaxal ci man limay may dugg ko génn.

ci seen jeunesse sama rew la ñew ñuy jël ay policiers ñu may top ñu may toroxal pourquoi fu ko tek man mënu ñu ma toroxal man ci rew mi la bok ñoxu moore moy suma maam Alboury ndjay moy moy ah, suma mam suma côté papa ñoxu moore suma côté yaay jurbel keur Cheikh ibrahim Fall la suma yaay juddoo ak suma mam Cheikh ibrahim moy suma mam sama côté yaay ak sama côté papa yëpp Aly Ngouille Ndiaye bu ñoo bok benn mam kenn ëppulé wu mu ci talon bi nak amna amna no pop mais ragal ma kenn ci biir réew mi fii kenn ëppalewu ma fii donc am na immigré yoo xam ne dañuy ñibbisi pour investir ñu leen di teg choc ñi di lekk seen xaalis yenn policiers yi corrompu di leen teg choc bañ découragé ñibbi policiers yëpp corrompu parce que gis naa ku mel ni commandant vraiment bu ma fa fekk il est galant jeune yoo xam te ni macha allah mais ñi corrompu laay wax a man vous pouvez pas me faire peur dem naa fu gën a métti ci biir États-Unis te loolu yëngalu ma woon man sama maam yëpp ay gor lañ ñoo xam ne mënu ma ko def gaynde laan lu ma ñëw suma réew ngeen ne ngeen may lu ma xototo xototal yooyu li ma tax suñu réew mi mënul dem parce que doomu réew ñu mel ni ñun dañuy ñibbisi dañ leen wax ne ay champion di leen jàppale di leen jeex encouragé bu leen ma jàppale sax ñu encouragé ñu ah yaa ngi sax au moins def dara ci réew mi école bi fii dëkk bi fii def naa fi librairie mbedd yi nga gis ni sama ñëwee seen yëpp maa ko def d' accord général Fall jàppale na ma ci ak sama grand bi nekk fii si bi yëpp maa ko fi def jardin bi nga gis nii xale yi ci mbedd bi lañ nekk di njoowaan amul fu njoowaan ci géej gi la ñu nekk te man sama doom yi ñu ngi États-Unis ma xool loolu mu métti ma ma def suma xaalis fii xale yi pour ñu am ñu ngi ko war a ñu ngi ko war a inauguré mois prochain chaque année danaa jël lu mat vingt bourses jël ay booy yóbbu leen ay millions laa ci fay yóbbu leen Dakar ay ISEC ak IAM ñu dem jàngi te booy yu ci bëri mosuma leen gis ba ci dem bi ci kenn yaay papaam gaañoo ñu wax dem di ko jaayee la ma wax ne yaa ma jox bourse ba ren laay am licence mosuma ko gis ba alxuraan xaw ma su ma romboon du ko xamé parce que pour man pour dimbalé suñu réew li ñu jëk def moy envoyer boy sur l'éducation benen bu ci top moy mbay mi ci maa ci maa ci ciy góorgóorlu li ma ay millions yima liggéey yépp mënoon naa ko def bi États-Unis top fofu comme suma morami you understand but I left everything and come back home puisque présent moo ne ñow bay ma bay li ñuy def ñun ñëpp mu ne boy nañ dem uti tool ñu dem ci tool yi ñëpp mënuñ ko kaas dañ ko wara jëfé depuis 2014 ma nekk ci tool yi di bay di ci perte xaalis ay millions you understand nekk ci di liggéey di liggéey ba tey yàlla mu ngi mën a jox ay résultats tool yi laa jógee nii ah. dem ne ba tey jii ñu ngi construire ci biir école yi Jeff Zone institut ci biir pour boy mars bi ñu inauguré ko pour xalé yi mën a liggéey waaw mais man fekkee loolu maa ngi koy def musuma laaj convention xaw ma xaalis état musuma am financement état du fii du bitim réew du benn financement international ay Nations Unies yi yëpp du ma laal sa xaalis. amul ci kenn koo xam ne mos na ma financé du USAID du ambassade États-Unis du du lépp lu nekk sama tool ak sama kër yi maa ko jëndal sama bopp maa ko liggéey Akon Ladoum Africa rek liggéey naa ci loo xam te ni mën naa ci retraité ba ba may dund ba ba may dee waaw rek ay nit yu tekkiwul dara parce que tekkiwuñu dara ñëw fii ne damay agressé benn ci policier dafa ñëw fii ba ci dem la ma booy wax indi gel sama si si résidence ba ne ko damay jox leen ma chambre mu ne ko noonu fay.

que man suma vie privée maa ko moom am naa droit exercer ko suma kër bëggatuma fi gis benn police bu ñëw suma gàll bi fii man I'm saying I don't want to see them in my house anymore because this jaayuma ko dugguma ci drogue defuma ko xaw ma ku man li ma nekk mooy liggéey ñëpp ni ma xam ci loolu amul fenn ci kaw si àdduna bi foo xam ne dew ma fa te yëkkati drapeau suma réew fekk fu mu dem ci kaw suuf yëkkati naa drapeau suma réew voilà Sénégal si je réew yi nous me ñu may traité yenn moom yenn ñu may ma warul traité et c'est la honte parce qu'on a besoin des champions pour le pays pour la jeunesse on a besoin des exemples pour notre notre jeunesse ils ont besoin de ça ils ont besoin des gens qui peuvent leur montrer que la réussite c'est pas seulement sur la politique ñëpp bëgg a nekk président te liggéey yi nekk fi xaajul you understand suñu genre gi ñëw we going to work we putting in work we trying everything we can to make something happen for our people 200 something people I'm paying every single week every single month di leen jox xale yi ñuy liggéey bu ñu weddee ñu fay leen ñi ma yóbbu leen ñu dem jàngi au lieu ñu ñu encouragé si loolu bu ñu def loolu dara sax ñi ñuy song dañuy agressé dañuy harcelé man dëkk bi amul yoon maa leen di leer man du ma ay boy yu ngeen di song fii di jël seen temps booy laa ci biir temps comme yéen yéen sa te maa leen gën a nekk naan te téeméer yoon parce que war naa àdduna ba pare doo ko ñëw amul benn booy policier bu mu amatu droit ñëw fii suma biir suma biir dëkk te dana leen porter plainte demain lundi sa bind naa les autorités maa leen déglu ci loolu mais puisque dama dem ba tolé ñun ñëwaat encore suma kër di arsenal dama bëggoon aduna bi yépp xamné lolu je ne suis pas en sécurité chez moi parce que la police de mon pays est en train de m'agresser chez moi au Sénégal pas aux États-Unis mais au Sénégal what the hell man bu ngeen am bu ngeen lu ngeen liggé ngeen mën ngeen ko def bu ngeen bëggee ko ngeen japp mën ngeen ñim dem japp boy yi dem ray suma frère Abdou Aziz ma mag ñu ñoo màggatoo màggandoo américain domam ñu ray ko dem leen ngeen dem chercher ñu ñooñu nga dem sa ci politiciens yi sàcc suñu xaaliss bi di duggal ci ay euh, appartement France ak ay Paris di yóbbu seen doom yi dem di jàng boy amaluñu lu ñu lek police dam leen jàppi politiciens yi rapport yi def ni ci internet bi ngeen ci si ngeen tey dañ def ci rapport yi ngeen dem fexé ñu japp ñooñu mais man ak suma moram yi ligay ngeen baay ñu tranquille mais what the hell we do man I'm saying this is the only reason why our country can go mais immigré yeen la waxal bu kenn ñàkk fayda nga ñëw ñu ñibbisi di bu taxatal pour ngay delu wat fi lañuy tok ci bir réew mi di liggéey ci bir réew mi ok lu ngeen si bëgg nag bëgg naa ko ci am no problem have a good Sunday thank you very much